lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko ni yàllay sabuur doo sàkku ngaramam yoneen sa soppe asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa uh, mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu ak di leen ziyaara ak di ñaan borom bi subhaanahu wa taala boo ñoo defal jàmm uh, di am mbégte ak contentement ci teewaay bi nga xamante ne teew nañ ko fii si Moukhsine TV uh, ci bëgg am ay leeral yu bari yoo xamante ne ñu ngi koy leeral ñun nag ñu ngi tudd imaam Mouhamadou Lamine Gueye euh, bokk ci mosquée de la divinité euh, dëkk it Wakaam euh, ku nekk jamono yi dégg na mbir yi nga xamante ne moo xew Wakaam ci xew-xew yi fii xew nit ñi di ci wax lu ne journaliste yi tamit di ci bind ñu nekk di wax Euh, ñu amoon yéene tamit euh, ñëw am ak leeral goo xamante ne dañ koy leeral leeral gi ñu ci bëgg a leeral it nag euh, day nekk leeral goo xamante ne rek pour laay biire ñi nga xamante ne bëgg nañoo xam muy leeral goo xamante ne nag leeralu jàmm rek lay doon ndax lii fi xew nii di mbokk moom nga xamante ne mi ngi tudd Habib géey ñëwoon fii ci Wakaam ñu bari dañuy wax ne euh, dafa yoroon daara daan jàngale bi mu yoree daara daan jàngale nag daan jëfandikoo góor ñi ci fii ci Wakaam loolu nag lañ bëggoon a leeral ne leen euh, yorul woon daara daawul jàng daaw yorul woon daara bu muy jàngale ndax euh, bu ñu waxee ne dafa yoroon daara rek ndax ñëpp a ngi bind naan dafa yoroon daara daara léegi noonu daara yi jóg taxaw daal di profité commencé di wax naan waa daara yi lii waa daara yi laa te yàlla seede na ne yorul woon daara Habib mi ngi dëkk euh, euh, dëkk bu ñuy wax jagle euh, mi ngi bokk ci mouvement boo xamante ne mouvement bi mi ngi tudd Hizbullahi ñëwoon ñëwoon ñëwoon fii ci wakaam daan fi jàngale alxuraan waaye ni mu ko doon jàngalee mooy dafa amoon ab néegam bu mu luye woon daan gis xale yi ci koñ bi daan wëlërante ak ñoom. daan jëflante ak ñoom naan da leen di ñaanal yàlla daan jëflante ak ñoom ci wàllu lasraar noonu nag ci la jàppanteeg xale yi daan leen jàngal yu ñëw si këram mu leen daan jàngal ba la nga xamante ne loolu lañ ciy wax ci moom loolee lépp di ci xew waaye nag nekkul koo xamante ne dafa yoroon daara alxuraan daan jàngale te nekkul it doomi wakaam loolu it bëgg nañ ñu xam ko ne nekkul doomi wakaam dafa sant géey rek ñëw fi ndax bu ñu waxee ne géey la sant te ku nekk dégg na li xew wakaam ci ñi sant Guèye euh, nekk fi ku mel ne Mawlana Mouhamed Sine xalifatullahi fil ardi nekk fi di yar ndaw ñi ci lislaam ci njub ak ragal yàlla ak sellal euh, tënk nit ñi ci côté bu mel noonu moom bu ñëwee fii dëkk wakaam nit ñi dégg ne Habib mi ngi si wakaam yor daara di jàngale sant Guèye ñu bari dañuy yaakaar ne ci askan woowu la bokk ñu xamal leen nag du si askan woowu nag la bokk waaye nag dafa ñëwoon fii ci wakaam yoruloo nit it daara alxuraan daan nekk di jëfante nit ñi ci wàllu ay lasraar daan jëflante nit ñi ci wàllu euh, jàngale ci biirum néeg ci la li nga xamante ne ci la xewee lépp xew kon nag loolu amul nañu yéene pour leeral ko doomu aadama yi ba ñu xam ko euh, li ci liñ ciy tegaat mooy nit ñi tamit euh, bëgg naa ñu yeewu ci lu bari ndax nit su fekkante ne danga bokk ak moom sax ndey ak baay su amee ak njubadi gu nekk ci moom Euh, bul ko nëbbal bu ko làqal ndax nëbb ak njubadi day jur musiba lu yàqu ci àddina lu bari rek nëbb ak di moo ko jur Habib bokk na ci xeet wu baax ndax man mii ngay jàkkaar lool magam Cheikh du lemin sama xarit la nit ku baax ku bari xam-xam ku ko ku ñu xam ci ci ci tedd xam ko ci ci ci lu ne waaye foo fekk lu baax rek lu bonan ca wet wax foo fekk lu baax lu bon ca wet wa ndax am na loo xamante ne bu jugee day yàq askan day yàq aw xeet waaw ndax euh, tey jii bu ñu waxee Habib rek ñu bëri dañuy tudd jagle ñu bëri tamit dañuy tudd Hizbullah nit nag ci bu bokkee ci benn mouvement def def ci ak ak ak caay-caay tooñ na mouvement bi yëpp tooñ na askan wa yëpp waaw te loolu loolu la taxawee nag taxaw na tey pour tooñ askan wa tooñ na mouvement ba yëpp ndax lii nga xamante ne ñu ngi ko si tudd di ko ko waxal ah loolu nekk na loo xamante ne lu naqare ay mbokkam la nekk na loo xamante ne lu lu yàq ak mbokkam la kon nag njub ak ragal yàlla ak sellal dafa am solo ci doomu adama euh, te yeewaat nit ñi ci ñu moytandiku bu baax ay mbirum sëriñ mbirum sëriñ dafa yàq nit ñi fu ñu dégg sëriñ rek daw wuti ko nit ñi xamewuñu nitub yàlla xamewuñu ab lasraarkat nit ñi tey jii kuy lasaraar yaakaar nañ ne ab nitub yàlla la xamewuñ lasaraar gu gu ñuul ak lasaraar gu weex xamewuñ ko ku ku ku kuy def lu baax ak kuy def lu bon nit ñi daal nañ dégg ne sëriñ nga rek ñoom daal sëriñ rek a leen di rey ku dégg ne sëriñ nga nga dem sëriñ nag lu mu leen teg ñu tegoo ko nag xàmmewuñ lu li leen sëriñ war a defaloo ak lu leen sëriñ warta defaloo lu leen sëriñ teg ñu tegloo ko loolu nag moo leen di yóbbee ci ñu dem ba dugg ci lu ñu warta dugg nit ñu bari seen ak sànkote li leen ko yóbbee boo xoolee ne sëriñ si la sëriñ si sonal nañu réew mi ndax kër yu bëri sëriñ see ko yëngal mooy lan mooy wàllum lasaraar gi nit ñi lasaraar bu ko nit di def ngir yéwénal moo tax mu war ko def waaye lasaraar du yàq ay diggante lasaraar du du yàqam xel ndax tey jii di nga gis nit kuy sëy ci kër mu nekk fa di sëy nga dem ci sëriñ mu ne la sa sëy bi ki ko yëngal mi ci biir kër gi nga ñëw tong waa kër gi yépp sa àddina yàqu ci biir kër gi loolu nag la ko waroon mooy defaral ko waxantaan ak moom nu mu fexee ba nekk ci kër gi nekkin wu neex jubale ko waa kër gi moo gënoon nga yàq ko ngir alal ndax léegi nit ñi bëgg nañ alal bëgg alal boo xamante ne ku ñëw ci ñoom lu ñu fexe ba lekk la wala ba ba ba am ci yow dong la ñuy xool bunt bu ko mën a jaaree rek jaaree la ko moo tax nag nit dafa war a xàmmee nitub yàlla ab lasraarkat te nit ñi xàmmewuñ loolu kon nag loolu bëggoon naa mu leer bu baax a baax te ñun euh, dañuy yor xale yi di leen jàngal di def ci ñoom lu nekk euh, wakaam xamee ñu loolu euh, kon suñu demee ba dégg lu mel nii am war nañoo jug taxaw wax askan wi ne wakaam dëkk la bu baax dëkk bu tedd dëkk bu am lislaam la dëkk bu am ay nit yu am valeur la waaye nag loolu moo tax nag ñu jug taxaw di xeex loolu kon nag mbir màngook ñu ñu feggoog suñu rakk euh, imaam Souleymane Diaw xam naa dina am ay leeral yu bëri yoo xamante ne dina ko ci leeral incha allahu taala. asalaamaaleykum mbokk yi ñu jàkkaarlool si Mouslih TV ñu ngi nuyu ñëpp di leen euh, baalu ax yi tamit. di rafetlu kàddu yi nga xamante ne sunu mag suñu sëriñ suñu ustaz yëkkati nga léegi mooy euh, imaam Lamine Gueye di wax ne man maa ngi tudd Souleymane Diaw. ñu gën ñu may oowee oustaz may jàngale alxuraan maanaam loolu moo nekkoon li nga xamante ne moo taxoon tey ñëw suñu tànk ngir waxaax mbokk yi nga xamante ne ñoo ñuy déglu pour xamal leen ne li xew wakaam bu leen foog ne kaka doon wax dafa yor daara yorul daara déedéet da doon wër di jàngale ay cours à domicile ba pare yoroon benn néeg dafa dajale xale yi dafa def kàmbis ak ñoom ne da leen di jàngal alxuraan si la lay xew-xew kàmbis la néegam nekk fii si koñ Abbas maanaam fu mu nekkoon foofu sax kër jàmbur la dafa luwe woon am si ñoo xamante ne si ñoom da leen doon sax fayal école ñii mu leen di jëndal ay téléphone waaw yu si bëri ñun xam nañ ko si waaw di wax ne rek comme li alxuraan wax baat auzu billaahi mina shaytaani rajiim wal baladu tayyib yaxruju nabaatuha suuf su sell du génne lu dul lu sell mooy nit ku sell rek du génne lu dul dul ay puupa te genre nit googu képp koo xamante ne gis nga leen si kaw suuf si gox bu mu mënti doon war nga leen signaler si teel kilifay gox ga génne leen dëkk ba ndax ñun wakaam am nañ fulla goo xamante ne bu ñu xamoon ne nii la mel kon génne na fi bu yàgg ndax ñun ñii di jàngale alxuraan ñun tamit dafay yàq suñu der alors que ñëpp yemuñu kon loolu nekk na loo xamante ne ñun ñi nga xamante ne dañuy jàngale alxuraan te alxuraan ñor ñu naxari nañu torop ba si kanam yàlla liñ si wax surtout ne sëriñu daara. moom mu bokk famille bu baax ba ñoom seen ziyaara ba ñu def annuel sax mas sa dem benn yoon masuma wan lii nii ñu koy giñ ay mbokkaam yi tamit masuñu ma wan lu nu mel ba tax na bëgg naa àdduna bi ngeen yeew li Oustaz Lamine wax rek nañu bàyyi ku ñu dégg rek dem sukk fa suñuy tànk muy lekk sunu alal dinu nax ndax doon na laaj xale yi ay xaalis naan da leen di génnaloo ay sarax loolu dégg naa ko ba tàyyi ndax am naa si ay rakk yoo xamante ne dañ daan ñëw si man dama diw nee nan naa ko jox temps mu génneen ma sarax mais yooyu daaw ma si avancer boobu xaw ma woon li xew mais tey jii defe naa àdduna bi ñëpp war nañ yeewu xam bu baax fa la ñuy teg seen tànk mais ñun nag dañuy juwaar li ñiy naxaate ñiy wax dëgg daanaka nit ñi sax booy bu ñuy ñëw si yow doo te doo leen laaj dara dañ naan kii xamul dara ñoom pour ñoom ki xam dara mooy ki la naan jox ma 100000 200000 alors que affaire bi nekkul foofu déedéet ba tax na yonent bi salaa salaam waxoon na ko lii warul bette benn jullit nee woon na axiru zaman di gis kuy jàng alxuraan sol mbubam jàngakatu alxuraan di woote diine te intérieurement dafa tilim kon loolu jar na nit ñi ñu bàyyi si xel bu baax nañ ci bàyyi xel man looloo nekkoon sama ay kàddu ndax man sama xol dafa fees ndax fogoon naa ne dina jube feneen fu dul fi mu jube ndax alxuraan dafa sell waaye nag allahuma mutimma nuruhu walaw karihal kaafiroon boo laaxatoo si diine di jéem a xeex diine yàlla yàlla fu mu jaar dina la nasaxal ndax leeram gi fu mu bëgg mu àgg dana fa àgg te kenn mënu si dara waaw loolu laa amoon li nga xamante ne moom laa doon wax di nuyu ñëpp di leen jaajëfal salaamaaleykum wa rahmatullah